yàlla rek mooy yàlla fan yële passé Youssou nga am benn taxawaay bu am solo ci famille Abdoulaye Mbaye euh, ba ñun ñi demoon fa wutali ñi leen wàllu tey yow nekkoon nga ak Abdoulaye Mbaye bitim réew euh, Abdoulaye Mbaye attachement bi mu amoon ci yaayam. Euh, jërëjëf buur kontaan naa trop boo boo tuddee Abdoulaye Mbaye dam da da may laal ndax Abdoulaye Mbaye day mbokk ah waaye ànd nañ lu yàgg xaw ma ne sax su sama mbokk la. loolu mooy wane ne sama xarit la woon sama rakk la woon di sama xarit ñu ànd ndakaaru ba ba ba ba ndakaaru ba bitim réew muy xale boo xam ne dama la waxul dara waaye njomam daf daf ma yéemoon ndax il était handicapé waaye dañuy waxtaan mi ne mu ñu man dama juddu rek xam ne warumaa yalwaan gëm ne warumaa yalwaan fexe ba ñu dalal ma école ma jàng waaye comme sama yaay ba mu ma amee moom mooy nettali de ay waxeeb laay mbay laay wax de du samay wax sama yaay ba mu ma amee dañ koo gaafaloon te xale waale wu ma ko ma am yow du ma yalwaan te dëgg-dëgg silma xalaa sama yaay ji dinaa ko xam nga ne kooku jàmbaar hmm. bu am jom waxuma njom ga nag muy ndaanaan bu mag ndax ku dégg ay œuvre am xam ne ah bu doon xale it <laughs> wayul ay wayu xale ci mbind ma mhm. ci ci ci ci façon woy ci justesse ba mu doon woy ci ay façon harmonie ma ci mélodie ma di ndaanaan boo xamante ni daaneel na mag daaneel mag daaneel xale ay ay ay ay son ak ay œuvre am bercé génération lëm donc ku mel ni ab Ablaye Mbaye ndeysaan bu amee njom googu fexe ba góorgóorlu malgré son handicap mu góorgóorlu ba jënd terrain ne terrain bi dama koy jënd ngir tabaxal ko sama ndey xam njàccaar sax dund na te amul boobu njom hmm. kon moom si Maxat bu góorgóorloo ba def loolu yàlla weddi ndeysaan sama bàjjen gañ si góorgóorlu moom it ak njabootam dajale la ñu amoon ne dañ koy tabax tàmbalee gu ñu sax ñu daaneel Sénégal nañu xoolaat li ñuy def xanaa bala ngay daaneel sax nga waxtaan eh arrêté hmm. lii dafa am lu ci am wala nàngam walla sàngam waaye tabax ak fi mu toll ciment ni mu seere béton ak ni mu seere fer ni mu seere nga lu ba yëg ñu daaneel ko li ñaaw na waaye nag taxawaay ba ngeen ca def man daf maa daf maa daf maa daaneel ba dama mujj sax croiser les bras génn ci bakku seeni loxo ndax ba ma leen woowee mënoon ngeen ne nañ bàyyi ba suba waaye yéen dama leen woore ca saasa ngeen def ni ngeen def ba tubaarkàlla ñu am ci taxaw bii ñu ci am yàlla na leen yàlla. gis nañ ne ministre de la

Euh, damay xañ sa bopp ngir bëggal nit hmm. engagement nit dina doon artiste sax te du xam lu tax man suis artiste je suis né donc xam naa lan mooy aar lu ma am ci àdduna aar ma ko gënal parce que yàllaa ma nattoo aar hmm. ñun ñi ne ci aar du ci dund xam nañ na aar amul dara mais yàllaa ñu ko nattoo te yàlla mu ñu ko nattoo nag muy ñuy tere waaye dafa am loo xam ne rek dafa ñu warloo ko réew mi ak lu ñu réew mi warloo. Ablaye bàyyi woon na fi soxna bàyyi woon doom. waaw ah, amul woon ndeysaan euh, yàlla dogalul woon ci moom mu am doom euh, amoon na soxna waaye sëy ba après continué wul waaye euh, am nay frère am nay sœur. ci askan wu rëy la ko. ci famille bu rëy la ko. dëgg ci réew mi kenn gënu ko du Dakar bàyyam ak yaayam bay yéefee bokk ndey bàyyi kon xam nga ne mooy Dakar Fass gii la juddoo fa la yoroo fa la màggee ñu daral ko ca Thiès mu jàng ba mën a bind mën a dama ak bu bu bu ñu wax na dugg tudd billaahi ñu doxe Paris dox ba àgg ci buntu këram ma nga dëkk rii Mira ndeysaan bu ma ba ci buntu kër gi di bëgg àgg mu ne si yemal fii def code ba muy code bi ci loxo ya koy bëgg ci escalier mi ma jaru kër yi day te ba étage parce que jamono am na fi mu dem tukki. waaw mel ni ku gàttaay. Mhm. Euh, gis nañ ko fi moom Régis Lapès. Serigne mhm. Mbaye Guèye. Mhm. ak yeneen artistes français. booy bi mel ni ku gàttaay. waaw ñu bëggatul woon ci réew mi. waaw waaw loolu seetaan ku méttee koy def xam nga nit boo ko seetaanee ba mu xam ne da nga ko hmm. ndax nag wàllu yaan sa kër a tëggul buñ rek mu toog te ndeysaan ko rek ba mu dee di diggéeyee bëri na. waaw récupération ba am ca dëj ba bëri na. Hmm. lu ne digg nañ ñu digg woon ñëpp korog lañ leen di digg ngeen déggatul ndaanaan yu bari ay ndaanaan yi ci réew mii di xeexal musique di di di di di layal ak a wax lu ne korog ñoo fa taxaw man maa koy wax yu si jëg ñoo fa taxaw digge digge gu amul at ak a paare yëf ya booy ñëw bëgg a def lu baax sax ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo la doo fi dugg di digge waay waay ragal leen yàlla kon ñu di ko woon mel na nit kon war am na war nañu am laay mbay waaye <laughs> gis nga yàlla bu la teralee <laughs> yàgg yàgg da ngay ter yàlla dina ko teral nit ñu baax ñii ngi di ma dégg dinañ ko taxaw ba tubaarkàlla maa ngi gërëm Iran Ndao gis naa lu rafet lu ci def mm-hmm. Mm-hmm. sa yéene ci Ablaye Mbaye ak yaayam ko ak Cheikh Cheikh ah Mame Koumba Diop xaw sax Yoro ah, ah pap Mayel mm-hmm. ah waaye doyen di nit ku baax mbay jéen bi xaritu Ablaye mbay bu baax ma nga ba Marseille waaye taxaw ci taxawaay bu am maanaam moo ma yónnee photo yi ba ma yónnee leen waaye kenn du yéen dina sotti de. incha allah leen xaw ma ku leen yéene ñu fanaan bitti waaye duñ fanaan bitti.